wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin amma baad wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nuxayikum bi taxiyati lislaam wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ginnaaw ba nu nuyoo ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Maulana Cheikh al Khadim ñaan ki nga fi toogal Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla yàggal ko fi ba yéene ji mu am liggéeyal Serigne Touba mu àggale ko ànd ko mboolem taalibe yi ànd ko mboolem njaboot Serigne Touba ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di jiital ci nuyoo bi sunu baay di sunu kilifa. si sëriñ Cheikh Baba lii sa gisee ñu toog ci jotaay bi nii jëmmal jotaay bi ñoo koy siyaare bu baax ñëpp ràññee nañ ko ci Jolof ak ci senegal ñoo ngi koy siyaare bu baax di ko jox wàccuwaayam ginnaaw ba nu nuyoo tey jii lenn ci comité scientifique bi doon waajal journée culturelle bi ak exposition yi dañoo xamoon lu tënkoon lu jëm ci Mbàkke Baari ñu am lu ñu ñoo xam ne dañuy wax ci Mbacke Baye fan la féete am ñuy wax ci loo xam ne Mbacke Baye yi nan la fa sëñ ba nekkee woon am ñoo xam ne dañuy wax ci Mbacke Baye yi ñan la fa sëñ ba nekke lool ak yenn relation la fa amoon ñun nag xam naa dañuy ubbi rek ndax ku woo nit ñi di leen wax li tax nga woo leen di leen wax li tax tamit fa nga tax nga woo leen fan la ci loolu lañ leen bëgg a xamale Mbacke Baye yi balaa loolu nag dañ leen di wax exposition yi lan moo ko waral exposition yi dañoo gis ne Mbàkke yi day dëkk bu am solo ci yoonu murit ndax jàpp naa ne kenn mënut wax taarixu yoonu murit kenn mënut a wax taarixu sëriñ bi te boolewoo ci Mbàkke Bari mu mel na nag importance boobu mu am ci yoonu murit ñu bari dañ ko umpule umpule gi am na ñu ko xam am na ñoo xam ne xamuñ ko ñu ne nag ñun daayira Miftahul Muna lëkkale jolof-jolof yi nekk ci université Cheikh Anta Diop war nañ cee bay waar wu am solo ngir xam ne dëkk bu sell boobu di mboolem jullit rawatina mboolem taalibe man cee jariñu ci loolu lan amee woon ndigal ci Serigne Cheikh Jooreel di xalifa nekk ca Mbàkke Baari bu joxoon ñu ndigal nañu saa bu màggal gi jubsee jox naa leen ndigal ngeen di taxawal lu mel ne ay journée ak i exposition di ko waajale bis bi ngir xamale dëkk bu sell boobu ak mboolem limaane te mboolem yoonu murid ci loolu lañ ko tàmbalee ba ren mu ngi ci troisième édition ren nag ci édition 2008 bi amaan nañ ci ndigal ba ci leen nekk nii kon nag loolu rek lañ leen fàttali maay maanaam historique bu journée culturelle bii nii dañoo woon ci ñun tamit ñi leeral Mbàkke Baari fan la nekk ak lan moo waral Mbàkke Baari pour mën wax Mbacke Bary fan la nekk maanaam situation géographique bi wala fan la féete ci réew mi Mbacke Bary soo dee xool ñu ngi féete ci région de Louga région de Louga yaakaar naa mi ngi ci nekk ci nord Sénégal maanaam bët bët gànnaaru réew mi ci biir région de Louga ñu ngi féete ci département de Linguère département de Linguère yaakaar naa ñu bari xam nañ ko ci biir département de Linguère boobu Mbacke Bary ñu ngi ci féete ci arrondissement bu naan Sagata Jolof Sagata Jolof digganteem ak Touba mi ngi tollu ci ay lu jege ay cinquante kilomètres wala lu demee noonu Mbacke Bari tamit mi ngi féete ci commune bu naan Thiamène Pass Thiamène Pass mi ngi nekk moom ci diggante Daara ak Mbacke Bari ci wàllum gàtta daal foofu la nekk ci soo dee xool ci su géographique Sénégal foofu la Mbacke Bari féete waaye nag suñu deltoo ci histoire ci ginnaaw ñu ngi koy fekk ci moom la mamlakatu Jolof maanaam ruwaayam di Jolof. loolu mooy li ñenn ñi suñu wax Mbàkke Baari dañ ciy yokk Jolof Mbàkke Baari Jolof ngir mën koo ràññale ci gàttal daal ci wàllum situation géographique foofu la féete ba tamit ci ci ngir leeral rek fekkee da nga faa bëgg a dem wala nga bëgg a xam fan la nekk dëgg-dëgg da ngay ab route nationale numéro 3 bi ñu naan ko RN 3 mooy bi jóge Touba jàll ba Linguère ci route nationale numéro 3 boobu foofu la nekk diggante digganteem ak Touba toll ci lu. jege 60 kilomètres joo duggee Touba jëm ci penku bi tali boobu ngay topp ba 60 kilomètres foofu la Mbàkke Bari féetee di nga romb dëkk yu bari nag dëkk yu am solo ci yoonu wër Mali tamit muy Mbàkke Jolof nga xam ne wala maam maaram tëdd ak Touba Boustan ak yeneen dëkk ginnaaw sagate nag ci ngay jote Mbàkke Bari mu tolloog 60 kilomètres ak Touba diggante nag Daara Jolof nag ñu toll ci lu jege 9 kilomètres foofu daal la nekk ci réew bi soo dee gàtt suñu waxee ci situation géographique maanaam mi ngi nekk ci région de Louga département de Linguère arrondissement de Sagata Djolof nekk ci commune bu Thiamène Pass diggante ak Touba ci 60 kilomètres mooy juróom-benn fukki kilomètres digganteem ak Daara ci juróom-ñeenti kilomètres loolu mooy fi mu féete ci Sénégal Mbacke Bary nag soo dee xool tour yi dafa mel na lu barkeel kenn natable na barkeel na sax ndax Mbacke baar yi bari na ci réew mi lool. mbàkke baari gee nag mooy mbàkke baari gi njëkk ci mbàkke ndax maam Maara moo ngi ko sàcc moo ngi ko sànc ci yi xam ne ëpp na ñetti téeméeri at ak lu tagal mbàkke baari nag mbàkke gi ñëpp war nañ koo xam ndax mbàkke mbàkke yi bu njëkk dafa mel na dañoo bëri bu toll nga xam ne fu masaan a féete da leen di ràññee naan mbàkkee nga ne ngir gën leen a mën a ràññee nag da leen di dàkkanteree ci garab gu ñu toog wala benn xur bu ñu nekk wala benn place bu man di nekk Mbàkke Baari nag li indi Mbàkke gi mooy loolu noonu Mbàkke Mbàkke fu man di nekk dañuy dañ leen di ràññee baari gi nag nee naan ab déeg bu nekk foofu la mu ngi ci penku ba fa nga xam ne fa la maam maaram féete woo foofu la déeg ba nekk tudd baari mbokk yi dëkk foofu di ko tuddee baari baari xoos xam nañu koy tuddee noonu ak baari olof loolu moo indi baari gi ñu koy dàkkanteel Mbàkke Baari jolof gi nag mooy li mu féete ci jolof moo tax ñu ci yokk mbàkki baari jolof nga xam ne mbàkki baari boobu ci mbàkke mooy mag ci mbàkke yi ndax maam maaram moo ko sanc maam maaram yaakaar naa ni mu doon waxee mooy addu naan yoonu mbàkke wépp askanu mbàkke wépp moo ko sancoon ci année 1700 fa lu yàgg lu jege ci juróom juróom benn fukki at ginnaaw ba la dem Mbàkke Jolof ba fa la mujj faatoo ban fa foofu la bàmmeelam nekk ba mu fa nekkee tamit moom njabootam gépp fa nekkoon ba xam ne denc nan fa ñaari doomam ca penku ba mooy soo demee soo soo demee Mbàkke Baari ca penku ba fu jàkkaarloo jumaa ja denc nañ fa ñaari doomi maam maaram Ahmadu Soxna Buso ak Soyer Soxna Buso nga xam nga xam ne Soxna Buso mooy seen yaay nga xam ne bokk nañ ci doomi maam maaram yi gën a mag ña nga foofu ca Mbàkke Baari ñu denc leen Mbàkke Baar yi nag ginnaaw ba fa maam maaram nekkee ba am fa juróom-benn fukki at lu teg ba jóge fa dafa gentoon lu yàgg gent lu mat ay ati at ci atum 1895 ci ci weeru ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa dafa sëñ Tuubaa daa dafay dem ngir waajale fa liggéey ba diggante mars 1895 ba 10 août 1895 sëriñ bi fa la nekkoon mu dëppoo woon ak ñii nee nañ ñaari fan ci weeru sawaal wala ñetti fan ci weeru sawaal mooy weer yu topp ci koor ba 18 safar fukki fan ak ñett ci weeru safar sëriñ bi fa nekk ba fa la génnee liggéeyam boobu xam naa dañu yem foofu ginnaaw ba ñu présenté Mbacke Bary dinañu jox xam naa ki topp ci ñun rek mu wax ci lan moo waral sëñ bi dem Mbacke Bary ak lan nan la fa nekkee woon ak ñan la fa nekkee woon maanaam ci gàttal ñoo ngi jégalu bu baax ci kàddu yi nag loolu rek lañ doon leeral ci situation Mbacke Baye maanaam fan la féete ci Sénégal fan la féete ci ci ci cosaan maanaam suñu wax ci royaume ci nguur yi ak jàlloon fan la féete ak digganteem ak ni mu mel ak digganteem ak Daara ni mu mel lépp leeral nañ ko mooy digganteem ak Touba toll ci 60 kilomètres digganteem ak Daara Jolof toll ci 60 kilomètres xam naa dañuy jox kàddu gi sëriñ amee Sall rek ñëw leeral ñu lu waral sëriñ bi. waral sëñ bi tànn Mbàkke Bari waajale fa liggéeyam bu tedd bi nga xam ne moom la ñu waajal bis bi ci le 10 août wasalaamaaleykum wa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 لا